population du Sénégal amis éleveurs yéen a ko doon laaj enfin seen émission le ku ci yaakaar ni sa mâle wala sa femelle mu ëpp ci réew mi sampal sa ndënd te woote gaaw ci numéro yi ci seen biir émission le champion. dinañ ci sargal éleveur bi ñu gën ràññee ci wàllu amélioration génétique ak production animale éleveur bi gën a fës ci wàllu diversification des espèces animales meilleure bergerie gétt gi gën a méngoog norme élevage éleveur bi boole càmm gi ak mbay mi seen émission le champion ànd itamit ak ay professionnels yu seen xam-xam ci lool ci wàllu nutrition ak santé animale seen émission le champion bientôt sur la Sen TV